nga yaatalal nu ko ku ko yaatal donte danga koo jot li ñetti mbokki jullit ñoo ngi ñaan suñu mborom tabaaraka wa taala mi dara jafewul mu may la fan wu gudd may la ak wér musal la ci balaa yi ak musiba yi eh, te yaatalal say xéewal ba li nga bëgg def ci lu baax lépp nga mën koo def ci barkeb alquran barkeb yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam barkeb cheikhil xadim barkeb xasida yi eh, tey ñu fas yéene andil xikma bu amati solo te mooy eh, leeral tolluwaay bi nga xam ne nii waa daara Hikmatul Yawmi tollu nañ ko ci seen yëngu ak seen i liggéey ndax kat wax dëgg yàlla na sunu diggante ak yéen fépp fu ñuy toll ñu xamal leen ko ndax lépp lu ñu nekk yéen a nga ca moo xam ñi bokk ci association bi la moo xam ñi bokk ci daara yi la moo xam groupe yi jot xikma bi la moo xam ñi koy déglu ci réseaux sociaux yépp la. Euh, ak ku man di doon rek yéen ñëpp gis nañ taxawaay yi nga xam ne ne yéen nga ñu koy taxaw ak di ñu jàppale ak di ñu gunge ci liggéey bi nga xam ne ne lislaam lañ koy liggéeyal di ci liggéeyal Sëriñ tubaa kon yàlla na fépp fu ñu toll rek ñu leeral leen ko fañ ñu tàmbalee leeral gi mooy euh, ku ne xam ne ni jamono yële ci gannaaw woote woon nañ fi ab siyaar boo xam ne dañ ko bëggoon a siyaare Cheikh Mamadou Mountakha ab sifallahu waraa ba jokkook ak njabootam ba jokkoo woon soog sëriñ koso yàlla na fi yàgg lool te waaye nag ci jamono yooyu ñu doon jàpp ay bis ak di jekk-jekkalaat ci la suñu borom ñëw ak coobareem tawat ji dal di ñëw ci àdduna ba taxoon e, naqarik jamono tax jóg dal di jafe te gannaaw dañoo bëggoon a yóbbaale tu tànk yi loola bokk na ci li diisaloon sunuy tànk waaye képp ku ci defoon sa dara moo xam benn dërëm la mbaa ñaar lañ ci defoon mi ngi fi barab ñu denc dara sikku ca ah, ñoo ngi ñaan sax di xalaat bu ñu àggee ci màggal gi incha allahu jëmmal ko ci xalaat yooyu ci lañ toll waaye buñ ci àggee incha allahu lu ci man di doon des na leen ko leeral nañ ñi ba ngeen dañ ci kumpa dañ ci itam ak réer bu soobee suñu borom tabaraka wa taala beneen ba ci des ci daara xikmatul yawmi ah, dafa toll ci wax dëgg yàlla ñu koy sante suñu borom tabaaraka wa ndax ku yëngu ci lu baax ku ne saa boo xëyee li ngay ñaan mooy yokk te jëm kanam daara ji nag niñ koy far niñ ko daan waxee rek du daaray commercial waaye daaray social la ba tax na li nga xam ne nii moom la way jur yi barkeeloo woyof gum woyof ak yaakaar juñ am ci njàngaleem waa daara Hikmatul mi e, ci ni ñuy jàngalee ak ni ñuy yare tax na itam wax dëgg dongo yi di ñëw ñëwin dañuy ñaan suñu borom tabaaraka mu gën a yokk ndax ñu sañoon képp kuy ndaw dana jàng alquran ñu yar ko ci diine ah loola nag tax na daara ji fi mu toll nii toll ci di bëgg a xat te ñaanuñu yàlla mukk nit jóge fu sori indi yaakaaram ak njabootam ñu ne ko mënatuñoo jël loole nag lay tax du am mooy ñu yokk liggéeyu daara ji ñu nekk muy dañoo bëgg a liggéey am mbaar mu mag ci kaw mu mucc ayib moo xam ne nii dana dëppoo ak jamono dana am sécurité la ca war dana rafet dana taaru lool ci nekk ak ci jàng alquran ak ci julli ak ci def lépp lu baax loole nag gannaaw buñ ci déggoo ak borom barab bi biñ ko xaymaa toll na ci ñaari million moo koy liggéey ba mu mucc ayib incha allah ñu bëgg nag képp ku dib jullit képp ku dib taalibe lépp loo ci mën a def ci saw ñaq nga defal nu ko ci nga jàppalee ñu ko ci te defal ko sa bopp ndax alxuraan lu ci waay def sa bopp nga ko defal ndax sun borom tabaaraka wa taala kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na sun borom nee na am na ak njaboot ci nit ñi saxaaba yi daal di koy laaj ne ko waaw njabootu sun borom googu muy wax mooy ñan yonent bi na leen mooy waa alxuraan ñooñu kat ñoo njabootu yàlla te ñoom la yàlla jagoo. qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi ahlina min annaas qaalu ya rasulallah man hum qaala hum ahlul qur'aani ahlullahi wa xaasatuhu te jàngalkati alquran yi li ñuy def ñëpp lañ koy defal ndax jàngale alquran fardu kifaaya la bu ko ñëpp bàyyi woon ñëppay am bakkaar ñëppay alku waaye bu ko ñenn dee def ñi ñi ngi koy ñi ngi koy defaaleel ñi nga xam ne ni seenu jot mayu leen ko wala mënuñu ko xam-xamit yonente bi sallallahu alayhi wasallam noon na na nga ci nekk ñeent te bul nekk juróomeel ba ñu ne ko ñeent yan mu ne na ngay jàng xam-xam wala ngay jàngale wala ngay dimbale ñuy jàng ka jàngale wala nga bëgg leen waaye bul nekk juróomeel ba mooy koo xam ne nii yooyu defu ci benn yàlla nañ ci yàlla musal euh, sëriñ Tuubaa sunu yaakaar it daana wax ne lu mu waay di defal ci lu baax de danga ciy dàkk sama bëgg kuy dàkk na mën ngaa jàmm mën ngaa bañ a bi bu boobaa man maa lay dàkk te kon xam na ne sëñ Tuubaa bu dàkkee du moy kon lépp lu ñu ci waaye defal ñu ko yéemuñu ko bu dee dërëm xaj na ci bu dee milliard xaj na ci ndax euh, liggéeyal yàlla moom du fees du jeex te taalib sëñ bu mu bu fekkee sa taalib bi lu wér la la nekk ci sa poos sëñ moo ko moom te sëñ Tuubaa noonu na sëñ Bànji Njaay man kat li ma am yéen ñi ñi féetee ci téere bi da ngeen ci am wàll te faaw ma jox leen seen wàll kon képp kuy taalib sëñ Tuubaa la ne ci sa poos donte ñaari dërëm la waa alxuraankat am nañ ci wàll ndax alal yi sëñ Tuubaa te am nañ ci wàll kon ñoo ngi ñaan ku ci def sa dara wala nga yaatalal nu ko ba kenn def ci daraam ñoo ngi ñaan suñu borom tabaaraka wa taala mu fajal la say aajo ak lu aajo ji rëy rëy yàlla na fajo ci fajun wu gaaw a gaaw wu jamp-jamp ndik nga xam ne sunu liggéey bi noonu yi la jampee ci barkeb alxuraan